président Cheikh yi euh, président mouvement Natka Kaolack euh, di sant ñëpp nag wax dëgg yàlla si bisu tey bi ni nekk bisu mbégte waaye mbégte boo xamante ni tamit xaw na rax si naqar moom lañ am tey waaw parce que mbir mi dañ ko war a am leer ñun ay jeunes lañu dañu liggéeyal Kaolack pour suñu avenir doom ëllëg ak suñu avenir u sët parce que Kaolack ni mu mel nii tey depuis 1960 ba léegi affaire yu njublan ak naxaate ak affaire yu sàcc ak saytaane rambaaj loolu noonu dafay jeex bañu ñu kaso bañuñu ñu cour de la haie mais li fi nar a am dañ ko war a leeral mu leer Youssouf Ahmed Bengelloune président ah départemental warul am ndam ànd ak sëriñ bu liggéey ba heure bii nii ah ku ñuy wax bi tey naan da koy jëm a xajamal loolu mënul nekk man dama rus xam nga rus mooy ku mel ni bi tey war a nekk référence ci Saloum parce que Saloum Saloum. foo leen dégg xam ne dañoo am jom saalum saalum ko xam-xam ne liggéey ak jàmm yàlla lañ leen xamee mais tey bi tey tax na ñun jeunes ruus rus nañoo taxaw sax ne ñun Kaolack lañ dëkk wala ay saalum saalum lañ parce que jikkoom bu bon bi muy appliqué nit da nga war a sincère nit da nga war a nekk grandeur ñi koy nekk si ginnaaw di ko ruux naan ko ay defal lii defal laa defal lële ñooñu musibaam lañ ko yéene musibaam lañ bëgg yow ku mel ni directeur général Sénélec war nga mën a rus jëf ju ñaaw jii nii mais ku mel ni Aliou Sall lan la bokk président ñoo bokk ndey ak baay biñ ko gañee mais dafa wane yëfu góor yàlla yaa ngi dégg Diouf Sarr mais bi dee ëpp lu ko xaalis ëpp lu ko dara lépp lu bi dee am Diouf Sarr am na plus biñ ko gañee xale bu ndaw moo ko gañee dafa wane grandeur yow nga nekk Saalum Saalum yàlla dimbale la nga nekk directeur Senelec du ay caaxaan mais gëmal sa bopp tey waa Këbu Tokki kenn añul ndax naqar ak rus ak gàcce moo leen ko teg su fekkee dafa bëgg a taal Kaolack na ñëw wax ak jeunes yi ne damaa bëgg a taal Kaolack ñun ñu taxaw joxe suñu bakkan parce que ñu ragaluñu kaso te ñu ay ragal tamit mais mbir mi dafa war a leer Serigne Mboup warul ànd ak Youssouf Ahmed lu Saloum liggéey ba heure bii nii yaa ngi dégg mu taxaw di am lu muy seetaan na taxaw wax wax bi mu leer. tey bu génnoon moom bu ko neexoon problème bi jeex léegi tey bu taxawoon si suuf ne fal nañ ma takkal nañ ma raay waaye balaa may jël fang soog Ahmed Bengelloune mbiram dina leer balaay mat cinq minutes président yëpp mais na wax wax bi mu leer parce que ñun fi ñu teg suñu tànk duñ ko wàcc mukk te jaral nañu lu ne nit danga war a gore bi tey tax na kenn bëggatul nekk Saalum Saalum si kaw la mais mais njuuj njaaj yi weesuwul li ngeen gis li ñëpp gis parce que tey nit ki mënul la gagné ci commune yow amoo fenn fooy jaar ñaan ay mbir na ak ndoor ak nangam nangam ay xaj ak ay affaire yu ñàkk fayda ah yow kii jox nañ ko këyitam nest jàppal ko jour lundi dañ ko war a installé préfet amul lenn lu dul jël téléphone mais loolu du respect nañ bàyyi affaire yu caaxaan yi ci Kaolack lii dafa war a jeex si Kaolack te ñun jaral nañu lu ne mooy li ma la wax rek ñanaa la suñu bakkan bi lañ ci teg tey duñ ànd ak sëriñ Mboup ak Youssouf Ahmed bi xeex ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon bañ jugee fi ñu def lu ne tey la suñu laay bàyyi suñu njaboot ginnaaw fanaan àll def lu ne taxaw si internet bi ñu ñuy saaga di ñu xas lépp ñu koy muñ ndax lan intérêt Kaolack ñu dem ba toll fii ñu bëgg naan ay dañ koy xajamal loolu duñ ko seetaat loolu mënul ne président Macky li mu koy lancé mooy na wax ak bi tey parce que mi ngi koy yokkal ay noon fii si Kaolack li muy def nii gënul si moom ñëpp nga koy weddi ay noon rek la koy yokkal mais liggéeylu ko dara su fekkee nag moom bi tey dañ ko dee nañu wax su fekkee président bëggul ñàkk bi tey ba tax nitam yëpp ñi si perte ñëpp dégg naa si ay wax ne dañ leen di dàq mais bëggul ñàkk bi tey bu dee loolu nag si la bi tey sukkandiku ñun jeune Kaolack nañ ko xam ñu teel a xam ñun nan la ñuy defaree suñu mbir ñu teel a xam na la wàccee si terrain bi nee naa la mbir mi nii ñoom bu ñu ci dellu ginnaaw ñun duñ ci dellu ginnaaw te jaral nañu lu ne nag lu ne loo xalaat jaral nañu ko si kaw si kaw la fii nii ak si ndakaaru foofu noonu parce que bi day ñun bu ay ragal xam nañ fu mu dëgg xam nañ fu muy liggéey xam nañ fu muy fréquenté yaa ngi dégg ñun léppam lañ xam saa ngi comprendre na def attention bu baax a baax a baax a baax gënu fi ko neexee mën nañu ëpp la xaalis mais ñu xam-xam problème bi loolu